asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Talif maa ngi lay nuyu di la ziar te la wax ni Ligue des champions bi incha allah Paris saint moo koy jël devant Lyon moo koy dóor même Ligue Europa bi sax euh, Séville moo koy jël incha allah lii laa lii laa ren bu soobee yàlla équipe euh, Séné France ci boppam. mooy jël raw gàdd bu ko jëlee nag da ko jox Sénégal Sénégal moo topp ci ginnaaw France lépp Sénégal ak France lay wëndeelu lii ay recherche la yow moo def depuis 1990 maa ngi ci recherche yi recherche yi nag day doog a terminé lii bu amee incha allah Sénégal mooy jëm caraw raw mooy jël raw gàddu ji am yëpp ci football à partir d'aujourd'hui bu Séné bu Paris Saint-Germain jëlee coupe mooy jël coupe d'Afrique jël coupe du monde lépp championnat bi am ci coupe d'Afrique ci football U17 yeeg bi soccer yeeg yëpp Sénégal lay ñëw bu soobee yàlla lii xam lii laa lay wax ci sa tali lii nga envoyé ma ko ñëpp ñu dégg ko bu soobee yàlla incha allah. Cheikh Talif maa ngi lay yónneewaat bi. di la wax ni yàlla dafa wax ci alxuraan ma lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe la lampe est dans un verre pareil à un astre étincelant qui s'allume grâce à un arbre béni un qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident et dont l'huile brillerait sans que le feu la touche allahu nuuru samaawaati wal ardi masalul nuurihi ka miskaatin fiihaa misbaah al misbaahu fi zujaajatin zujaaja kannaha kawkabun duriyun yuuqadu min sajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa sharqiyatin wala harbiyatin yuqaalu zaytuhaa nuuru yuqaalu zaytuhaa yuqaalu zaytuhaa nuuru yuqaalu zaytuhaa masalu nuurihi kamiskaatin fiihaa misbaah al misbaahu fi zujaajatin zujaaja kannaha kawkabun duriyun yuuqadu min sajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa sharqiyatin wala harbiyatin yuqaalu zaytuhaa nuuru yuqaalu zaytuhaa damshu naarun mooy la niche c'est un terrain de football se trouve une lampe la lampe c'est l'équipe du Sénégal la lampe qui allumée grâce à un arbre béni un c'est un être humain c'est moi qui n'est ni de l'Orient qui n'est ni noir ñuulul xeesul dont la lumière brûlait sans que le feu la lampe bi tàkk te la koy taal mooy man mi nekk fii di taal équipe du Sénégal sans pour autant ma jege ko léegi dama ne la équipe du Sénégal day briller actuellement nii day briller incha allah dina briller briller boo xam ni day jaaxal àdduna lépp ngir man ndax jaayante bi ma jaayante ak sunu borom yàlla bëgguma koo fay ci lii te dina doore ci Paris mi jël coupe bi dóor Lyon ak Séville mi jël coupe bi man maa ngi gëstu gëstu yu may gëstu yëpp pour Sénégal la mais ba léegi gisaguma ku ma wax dara maa ngi lay ñaan nag lii nga partagel ma ko ñëpp dégg ko bu soobee yàlla incha allah.